من مادي القرآن جزاك يودغنان فما يودي باوان كما سير نجس إيمان من يلم إتما واخ ما جنسل مسواخ فما ليفنا الدملاخ فم لين ما القرآن leer laa gu ñëw ngir nit ku ma jàpp dootoo weet sama leer fa sotti coleet man maa di alquran dayram mu bir bàmmeel ku ma tànk dootoo jeet sama leer اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen ndokkeel ci koor gi nga xam ne génn nañ ci di ñaan yàlla mu nangu ñu nangu leen ñu ngi ñëwaat ak yéen comme nañ ko waxee woon ci koor gi jotaay yi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci koor gi doon ko def bis bu nekk ak yéen dañ ne woon xëy na bu koor gi génnee duñ ko mën di def bis bu nekk mais dinañ mën def chaque semaine ñu def benn jotaay euh, jotaay yële bu ngeen seetloo ci alpo ci euh, koor gi la gënoon jëm ak ci wàllu tegginu koor ak lenn rek ci ay attee mais jataay yii nii dañoo xalaatoon def ko ci al alquran mu nekk loo xam ne dañ ciy jublu seetlu alquran taxaw di seetlu alquran mooy du xëy na doon tafsir boo xam ne dañ koy topp baat par baat tafsir ko waaye seetlu yenn njàngat yu mën a jëlee ci alquran ndax alquran mooy téere bu nga xam ni ci la suñu borom subhanahu wa taala def suñu léppi xam-xam ci la def suñu léppi njub lépp lu ñuy seet ci njub mën nañ koo seet ci alquran xëy na nit ñi seen ak gëstu ak seenu settantal moom mooy des waaye bu fekkente ni jumtuwaay yi war a tax ñu setantal mi ngi fi ba noppi ñu taxaw ci settantal ko alquran daanaka li ñuy soxla ci suñu dund ci suñu léppi mbir yàlla subhanahu wa taala def na ko ci alquran settantal boobu tamit dina tax ñu gën a am kóolute ci ne alquran ci waxi yàlla la subhanahu wa taala ndax doomu aadama mënul wax lu mel ne alquran alquran ni muy waxee doomu aadama amul ci xam-xam ak ci kàttan ak ci mën-mën ci teural wax ju mel ne alquran ni muy waxe bu fekke certantal nañ ko bu baax xol wax ci ni nga xamne non la tedde lolou bokku na ci djublu way yi nga xamne mom mo tax ñu taamu alquran ci jotaay yi nek na xeyna dañuy jël ben sar wala ñu jël ben aya wala lenn ci ay aya wala ben netali ci xew-xew yi jàll bu yàlla nettali ci alquran ñu taxaw ci jàngat ko xol lan lañ ci mëna jëlé comme ay leçon lolou nekk am solo lo xam suñu borom subhanahu wa taala neena na tax mu wàcc alquran كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بعض النبرات أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا موينة القرآن تبوك يا الله سبحانه وتعالى موديقل دوم آدم موديقل نيني نيو ستان تلكو ستان تلكو بفت كنتني من نانك كنا جمتوا ييغا خمنا مولا لاتشوالو خم خم أكتم جانغ داجانا تنفكي مو ستان تلكو loolu saa bu ko nit ki defee ànd ci ak coobare ak góorgóorlu ci comme na ko cheikh abdourahman saadi waxee ci alqawaidul xisaan insha allah dina àgg ci li nga xam ne mooy meññet ya nekk ca gannaaw set seetlu alquran ci jariñu bi muy jariñu ci ay xam-xam yu bare bare yoo xam ne yàlla dëxëñ na ko ci biir alquran suñu jotaay bi nga xamante ne nag mooy jotaay bu njëkk bi dafay jëm ci saar bu gën a màgg ci alquran muy suratul fatiha suratul fatiha mooy umul kitab mooy ndeyi téere bi ndax moo jiitu beneen bi ci des tamit moo ëmb lépp loo xam ne mi ngi ci alquran maanaam dafa ñëw nekk comme introduction boo xam ne dafay introduire téere bi alquran nga xam ne lépp lu nekk ci alquran boo ko seetloo yàlla junj na ko ci biir fatiha moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam tuddee ko ummul quran tudne tuddee ko ummul kitab ñu koy tuddee tamit fatihatul kitab ndax moom moo tijji téere bi muy saar boo xamante ni saar bu màgg la ndax moo gën a màgg ci saari alquran yi ديال سبع المثاني بجروم juróom آية aaya yi موم لا ne سبحانه وتعالى جوخ يونس wa عليه الصلاه والسلام تي بن تي تفسير السلف داخ نينن تي نيوم واخنا ñeneen موي السبع wax مو جروم mooy سار tiwal mooy juróom ñaari saar yi nga xam ne yu gudd yi la comme nañ ko jëlee ci lenn ci ñoom ci ne mooy ci ñoom doon wax ne doon boole li nga xam ne mooy anfal ak tawba def ko benn saar mu juróom ñaari saar gudd yi waaye li siiw na itam ñëw ci xadis yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne fatihatul kitab mooy assabu almathani wal quran al azim alladi utituhu ndax juróom ñaari yooyu moom la ñuy baamtu ci julli bu nekk di ko jàng di ko jàngaat yàlla subhanahu wa taala jox ko yonente bi alayhi salatu wasalam feddali ko ndax màgg bi nga xam ne màgg na ko mu juróom-ñaari saar yooyu borom xam-xam yëpp dëppoo ci ne juróom-ñaari juróom-ñaari aaya yooyu borom xam-xam yëpp dëppoo ci ne juróom-ñaari aay la xëy na li leen wutale mooy compté bi ndax ñenn ñi dañ cee boole bismillahi rahmaani rahim ñenn ñi ne bismillahi rahmaani rahim bi bokkul ci fatiha léegi booba aaya bu mujj bi dañ koy dagg def ko ñaari aaya sirata alladina anamta alayhim ñu dagg ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñu def ko beneen aaya waaye juróom ñaar la ci kon ci wàññin bi lañuy lañuy wute waaye ci ne juróom ñaar la wute wuñ ci nekk bi mu nekk juróom ñaar tamit junjuma nga fa ci jëmmi chiffre bi ci boppam na duñ dugg trop ci loolu ndax mën nañoo yóbbu ci wàllu li ñu tuddee numérologie te nekkul jubluwaay tamit ci alquran di ko tafsir di ko jëmale ci loolu ci ay chiffres rek ay code yu mel noonu ndax loolu ci réer rek la yóbbu waaye juróom-ñaari aaya yooyu ci ay aaya yoo xamante ne yu màgg la bu fekkente ne seetlu nañ ko dañuy gis ni nga xamante ne bi noonu la saar bi tëddee dafa nekk lu doy waar ndax dafa tàmbalee dugg ci turu yàlla wala ci tudd yàlla ci bismillahi rahmaani rahim foofu la tàmbalee dugg mu ci tudd yàlla ndax boo nee bismillah nekkul ne ci turu yàlla waaye moo ngi ne ci tudd yàlla comme na ko ibn ibn jarir waxee maanaam ism foofu li muy tekki mooy ak tasmiya ism la mais masdar lañ ci nam mooy ci tudd yàlla laay tàmbale mooy damay tudd yàlla tàmbali léegi nga jiital turu yàlla baa bi ñenn ñu ne zaida la ñenn ñu dafa lëkkaloog benn fiala boo xamante ni fiala muqaddar la mooy li ngay def loo mën di def jarul nga koy tudd jarul nga koy wax dañ la ko jox moom bismillah rahman rahim mu nekk benn règle boo xam ni règle générale la lépp looy def mën naa ànd ak moom jarul sax ngay tudd lan la boo nee bismillah rek defal bismillah waxal mu ànd ak la ngay def mu ànd ak la ngay wax mooy ne kon tudd yàlla def nga jiital turu yàlla ci kaw sa jëf wala sama tàmbali ci tudd ci tudd yàlla la mooy ibtidaa yi wala fi'li wala amali léegi loolu la saar bi tàmbalee mooy kon tudd yàlla mu jëfandikoo baatu lafzul jalala allah bi nga xam ne day dellu ci al uluhiya mooy yàlla nekk gi mu nekk kenn ci yelloo ñu jaamu ko wareesul jaamu keneen ku dul moom moom képp lañ war a jaamu mu jëfandikoo tur boobu nga xam ne mooy nday turu yàlla yépp mooy jiitu yeneen tur yi topp ko ñeneen ñaari tur yi mu ci toftal dina ñëwaat ci kanam ñaari melokaan la ñaari melokaan la waaye day dellu ci benn melokaan ndax rahman rahim la wax tëggin bi wutale leen mais ñu dellu ci arrahma bi nga xam ne mooy yërmande benn bi nekk faalaan di siixatu mubaalaxa muy dellu ci yàlla yaatu mu yaatu yërmande ci jëmmam ak nu melowoo yërmande beneen bi ci des di nekk faayil bi maana faayil lim ci gën a namm mooy yërmande jooju yërëm jim ci yërëm jaam ñi loolu dinañ ci ñëw ci kanam ndax da koy bamtuwaat buñ bàyyee bismillahi rahmaani rahim bi dem ci aaya bi nga xam ne moom la njëkk a tudd bi yàlla subhanahu wa taala di wax dafa wax ci àdduna bi ak lépp lu am existence bi wax ci univers bi wax ci yàlla mi nga xam ne moo ko amal ne amalul boppam organisation bi fi nekk ak li fi nekk ci dund ak ni mu tëddee nekkul lu mën a amal boppam ndax lu amul du amal boppam te itam tëddin bi mu tëdd mënul nekk ne moom moo ko organiser boppam kon beneen mbir boo xamante ne bu supérieur la moom moo mën a établir loolu moo tax mu ne alhamdulillahi rabbil alamin léegi foofu dangay ngay gis dafa jëfandikoo rabbul alamin muy ki nga xamante ni bi mooy buur di boroom di kilifay mbindee fii taxaw seen lépp waaye bi muy xamle kooku kan la di ko xamal mbindee fii daf ko jaarale ci alhamd muy cant bi nga xam ne mooy cant dëgg ak reconnaissance ak delloo njukkal kooku moo ko yelloo kooku mooy kan mu ne kooku mooy yàlla ndax dafa def loo xam ne dafa mat def defin boo xamante ne bi dara mat a diw ci dara wàññiw ci lépp lu rafet la dafa tàggat mbindeef yi tàggatin boo xam ne bu rafet la boo xam ne boo ko xoolee seetlu ko danga nga naan alhamdulillah da nga naan kooka kon ku mat la ci jëmmam koko ku mat la ci xam-xamam koko ku xarañ la ku mat la ci ay jëfam kon bi muy xamle kooku kan la daf ko jaarale ci alhamd muy cant mu jaarale ko foofu ne lillahi ñel la yàlla yàlla moom moo ko moom mooy xeetu cant yépp bu ñuy wax cant dëgg-dëgg yàlla moom moo moom cant googu moo ko jagoo mu daal di wax ne yàlla moomu mooy rabbil alamin mooy kilifay mbindeef yépp waxul alam mais alamin la wax ndax aalamu al aalamun mooy lépp lu dul yàlla mbindeef yépp boo leen boolee aalamun lañ leen tuddee boo leen tàqalee def leen ay catégorie benn catégorie bu ci nekk aalam lañ lay tuddee baatu aalam boobu pluriel la boo xamante ni amul singulier aalam pluriel la bu amul singulier yàlla jëfandikoo loolu mooy ne lépp lu mun a am ak façon xeetu mbindeef yi am ak génération yi jàll génération yi ñëw yi yépp yàlla moomu mooy seen kilifa kon moom moo tàggat loolu yépp yàlla moom moo ko tàggat tàggat googu mu ko tàggat ci ni ni mu tëddee ak seen dundin ak seen nekkin war na leen xamal ñu xam ne kon am na buur ak boroom boo xamante ni moo taxaw seeni mbir ba mu mën a mel ni mu mel ndax kenn ci ñun melalu ko boppam kenn ku nekk ci ñun bu fiy ñëw du mën dara du indi dara kon li fi li fi nekk da ko fee fekk da ko fee fekk kon loolu li muy tekki mooy am na koo xam ne moom ñu jiitu defar ko waajal ko ba noppi ñun ñuy soog a ñëw kooku moo tax ba yàlla jëfandikoo baatu rabb rabb bi nga xam ne ci ak tarbiya la jóge muy taxawu gim ñu taxawu toppatoo gim ñu toppatoo ak yore gi mu yore suñu mbir di ko doxal ci lépp yàlla jëfandikoo loolu loolu kon nekk benn tegtal boo xam ne fatiha dafa ñëw tàmbali dugg ci xamal mbindeef yi ne leen am ngeen boroom am ngeen buur boo xam ne moo leen sàkk moo leen tàggat moo leen amal moo yore seen mbir di ko doxal kooku mooy allahu mooy yàlla ji nga xam ni moom ngeen war a dellu ci moom di ko jaamu nangul ko déggal ko toroxlul ko kon mu tàmbalee ci sàkk gi ak amal gi jóge foofu tëb dem ci njeexital bi ne malik yawmi diin dafa commencé ci commencement dem ci terminaison wala bokk ci njeexital gi njeexital gi mooy lan mooy yawmu diin rabbil alamin mooy sàkk gi mooy amal gi jiitu gi ñu jiitu moom yàlla ci defaral ñu lépp tàggatal ñu lépp ñu ñëw dund ginnaaw loolu am na fu dund googu di léegi loolu am na lu bëri luñ ci yàlla di di xamal li nekk ci diggante li nekk ci diggante bi mooy dund àdduna ak nekkinu àdduna am na lu ko waral leer laa gu ñaw ngir nit ku ma jàpp dootoo weet sama bu ñu jógee ci alhamdulilahi rabbil alamin ñëw ci malik yawmi ddin dañuy gis ci diggante bi suñu borom subhanahu wa am lum fi indi ci melokaanam indi ñaari tur comme niñ ko jën junje woon ci bismillahi rahmaani rahim bi dafa indi ñaari tur yoo xam ne tur yu màgg la ci ay turam bim ñuy wax kan mooy rabbul alamin mooy kan mooy ki nga xam ne moom moo tàggat àdduna bi moom mooy kilifa yi jaam ñi lépp lu ñu am moom moo leen ko defal kan mooy kooku bi ko yàlla bëggee xamle daf ko xamle ci ñaari tur mu mel na ñaari tur yooyu mooy jëmmal rapport bi nekk diggante buur boobu diggante borom boobu diggante kilifa googu ak li nga xam ne mooy mbindeefam yi mu sàkk moom ci loolu lay jëflante ak ñoom waaye tamit mu mel ne li ko séq tamit li nga xam ne ñoo ko séq mooy alhamdulilahi rabbil alamin di sàkk mbindeef fi ak maliki yawmi din muy dajale gi mu leen di dajale bi su penc ngir fay leen mu mel na tamit ñaari tur la yoo xam ne benn bu ci nekk am na bu mu gën a jege ci ñaari yooyu bi ci njëkk mooy ne arrahman arrahim la wax arrahman irrahim mooy comme nañ ko waxoon ci basmala bi mooy ne kooku nga xam ne moom mooy kilifa yi mbindeef yi di ki leen sàkk moom leen te di tàggat ak di doxal seen lépp mbir kooku mooy arrahman mooy ki melowoo melokaanu yërmande di melokaan bu yaatu muy siratu faalaan bi nga xam ne ci lim gën a jëm mooy melokaanu jëmm mooy nu yàlla melowoo naka jekk la yërmande lu yàlla melowoo naka jekk la yërmande bu yaatoo yaatu laata sax mu sàkk mbindeef yi fekk na mu melowoo melokaanu yërmande waaye ginnaaw bi mu sàkkee mbindeef yi amaat leneen loo xam ne jëf la di melokaan boo xam ne melokaan bu jëm ci côté jëfam la bu njëkk bi di arrahman jëm ci côté jëmmam di melokaan boo xamante ne sifa azaliya lañ koy tuddee muy sifa zatiya di melokaan boo xam ne bu sax la ci moom naka jekk beneen melokaan bi di arrahim di fail bi nga xam ni fail la gën a jege nga xamante ni ci lim jég lim jëm mooy jëf yërmande mooy yërëm ay jaamam ginnaaw bi mu leen sàkkee kon mu jox boppam ñaari melokaan mooy ne naka jekk dafa melowoo yërmande laata sax mu sàkk mbindee fii waaye bi mu sàkkee mbindee fii itam ci yërmande rek lay jëflanteeg ñoom kon bu ne rabbil alamin nga ne lu tax mu sàkk mbindee fii yàlla dalal sa xel ci ne la lenn taxul mu sàkk leen dul yërëm leen mooy li mu waxoon ne illa man rahima rabbuk wa lidalika xalaqahum mooy yàlla subhanahu wa taala yërëm jaamam ñi moo tax mu sàkk leen kon ci yërmande lay jëflanteeg ñoom ndax xam na seen ñàkk doole ak seen di ne fu ñu toll ñu ngi aajowoo yërmandeem subhanahu wa taala waaye boo gisee tamit bi mu waxee arrahman mu jóge rabbil alamin arrahim jóge maliki yawmiddin yenn ci borom xam ne ñu wax ne rahman mooy melokaan bu yaatu bi nga xam ne jaam ñëpp dugg nañ ci ndax lépp lu yàlla sàkk rek yërëm na la defal na la am defal na la yërmandeem waaye rahim mu mel ne mooy melokaan yërmande bi nga xam ne moom la jagleel gaa yi bu ëllëgee mooy yawmu diin mooy bis bi nga xam ne ci lay fay te bis bi nga xamante ne ci la ñëpp di aajowoo yërmandey borom bi subhanahu wa taala kon diggu doomu bi nga xamante ne arrahmaani rahim digg doomu na ko diggante rabbil alamin ak maliki yawmi din am na gendeeku bu a am solo bu fa nekk boo comprendre rabbul alamin comprendre loo yawmu din doo mën a comprendre dund bi ñuy dund fii sens bi doo ko mën a xam kon foog nit ki loolu jiitu ci moom leer ci boppam ci xam ne existence bi fi nekk xereñ gi mu xereñ weesu na ci nit mën koo sàkk wala mu koy amal ni mu nekkee itam ni mu tëddee itam xel mu mat mënta gëm ne lu amal boppam la kon am na ko ko amal waaye léegi bu nit ki xoolee ci loolu jàngat ko war na posé wu la pourquoi lan moo tax loolu am mooy lan moo tax lii fi nekk nekk fi dund gi ñu fi dund ñu ko fi dund lan loolu moo lay yóbbu ci maaliki yow mu diin boo comprendre yow mu diin doo mën a comprendre le pourquoi bu ko defee kon nekkin bi fii du mën a normal du mën a jaar ci yoon kon ñaar yooyu ko séq nit ci foog mu comprendre ko pour mën a comprendre dundinu àdduna bi lan moo ko waral fan la tàmbalee fan la jëm ak mën koo dund dundin boo xam ne mucc ayib la foofu la ñuy taxawee ba beneen jotaay insha allahu taala di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu taxaw ku ñëw danga sama yiw wi day baawaan ku ma seetlu gis أميان لمعك مواخ ما جنتل متواخ سملي فناد ملاخ سملي نمي قرآن لير لا غنيو جرنيت كما جاف دوتويت سملي فصد بجلت من مادي القرآن